ne kaa bi yëg naa ko bu yàgg kaa bi yëg naa ko bu yàgg producteur bi day mujjee takk xale bi mariage en téléchargement producteur bi day mujjee takk xale bi loolu moom wax dëgg yàlla askan wi dinañ ci kontaan parce que xaar bee yàggoon man kay maa ngi doo a xam ni tax xale bi demoon village natal en tout cas yàlla na sëy bi barke waaye xale bu jigéen bi sant mbay te bokk ci série kaawam bi metti na ma trop kaawam bi metti na ma trop moom daal jëkkër ji fasewu ko bàyyiwu ko libéré wu ko yoratu ko delloo ko kër papam wàcc ko fa ba pare nangu koo may baat bu ko defee góor gu ñëw ñu ne ko kii mi ngi ci ba tey mu delluwaat tënk doomu jàmbur takkoo ko fase woo ko nangoo gu beneen góor ñëw ku ñëw romb ku ñëw ñu ne daa nekk ci buum yenn àq la sëy daggan na tas daggan na waaye doomu jàmbur boo ko bëggatul ba delloo kër papam nga war koo mën a may baat ndax imaginal tey góor gu ñëw ñu ne la mu ngi ci buum mu dem bu ko defee lekkoo ci ndab li bëgg cee xëpp suuf utiliser wu ma kenn du utiliser li nekk ci réew mi lépp kenn mënu ko wax waaye man nit maa ngi boxam rek ndoxu siti bii